yéen ndawi Sénégal asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nuyu naa leen waaye dalaluma leen dalaluma leen ndax woowuma leen ki ñu woo woo leen mooy rajaul baraaya yowmal istihaam dirham sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na bismillah marhaban bikum seen wuyu si bi rafet na seen wuyu si bi riir mi foor na seen wuyu si bi riir mi baañ na asamaan yéene ci yéen mooy rajaawul baraaya mi nga xam ne min kulli wasfin hamidin xaasa lii moo mën a am jàmm am lii moo mën a am jàmm am fu ngeen toll di wax ne da ngeen a bëgg yoon ci Yàlla Muhammad ne yéen a wax ngeen dëgg bëgg ngeen wax ngeen dëgg bëgg ngeen wax ngeen dëgg wane ngeen ne bëgg ngeen rasulullah sagal ngeen seen yont yàlla Muhammad du mooy mooy maye ndax amul lu moomal boppam lu maye waaye ku jubóowul ak moom yàlla du la may kon yéen seen xel dal na seeni sëriñ yi leen jàngal yonent bi ba ngeen xam ko ñu yar leen ba ngeen bëgg ko sagal ngeen seeni sëriñ yi leen jàngal yonent bi ba ngeen xam ko ñu yar leen ba ngeen bëgg ko moo tax sagal ngeen Cerno Suleymaan Baal waaye sagal ngeen al imaam Abdul Qadir Kan waaye sagal ngeen alhaaji cheikh Umar Fuutiyu Taal waaye sagal ngeen mawlaana xaadimu rasulillah waaye sagal ngeen mawlaana alhaaji Malick Sy ibnu Usmaan waaye sagal ngeen maam Abdoulaye Niass waaye sagal ngeen cheikh Saad bu Abi waaye sagal ngeen maam bu maam bu Kunta Ndiassane waaye sagal ngeen maam Limaamu Laay falaax waaye sagal ngeen alhaaji Cheikhou Touré mi nga xam ne mooy fondateur u ICM union culturelle musulmane ak OAI waaye sagal ngeen al oustazul kabir alhaaji Malick Ndiaye mi nga xam ne moo sos Ibadou Rahman sagal ngeen ñëpp fay leen yàlla yàlla fay leen yàlla na leen yàlla fay ci barkeb sëriñu sëriñu Muhammadu bnu Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam